waaw euh, ñu ngi sant yàlla bu baax euh, bi nga xam ne moo ñu womat indi ñu tey euh, ci la ville sainte de Touba pour indi li nga xam ne mooy sunu contribution en tant que ministre de l'environnement et du développement durable ci tegtal ak ndigalu son excellence le président de la république ki nga xam ne moom moo ñu wax nañu def sunu kéemtalaay kattan euh, pour que édition bii di màggal bi ñu dégmal nekk une réussite sur tous les plans looloo waral euh, bu ñuy dégmal le plus souvent màggal de Touba bi nga xam ne événement religieux la de dimension internationale ay millions wu sénégalais ñoo fi daje venant de tous les coins du monde euh, ñu war a waajal Euh, li nga xam ne moom mooy nettoyer dëkk bi euh, waajal bi nag euh, lu muy laaj bëri na lu muy laaj moo tax bëri na moo tax ñu xalaat indi sunuy contribution ci li nga xam ne moom la ñu dégmal mooy nettoyer la ville de Touba et ses environs indi nañu nag matériel yu bëri mënuma ci wax lim yi fii waaye jàpp nañ ne euh, indi nañu sunuy peut-être asaka yéene li ñu yéene woon a indi euh, xëy na moo ëpp lii mais jàpp nañ ne lii euh, nit ñi mun nañ ci mun na permettre li nga xam ne mooy opération bi ñu dégmal mu nekk une réussite en tant que ministre de l'environnement nag bi may dugg sànq Touba sama sama xol dafa sedd sama xol dafa sedd parce que boo rombee ñaari allées yi gis ñu commencé di ko reboiser te mu jógee ci ndigalu xalif général en tant que ministre de l'environnement sa sa xol dafa war a sedd parce que loolu la sunu loolu la président de la république euh, digle mooy dafa bëgg euh, ville yëpp naat ville yëpp vert da bëgg àll bi yëpp verte donc ku mel ni nag xalif général bu joxee tegtal moom ci boppam jàpp nañ ne ñëpp dinañ ci dinañ ci topp loolu moo tax am nañu yaakaar bu baax a baax ci projet bi nga xam ne ñu ngi ko sumb ci yàlla teg ci loxoom pour mu réussir ñu ngi ci sant yàlla bu baax euh, di remercier autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ñu teer di remercier également ñi nga xam ne ñoom ñoo yore commission bi nga xam ne moom la moom moom moom la ñu jiital ñoom la jiital ci liggéey bi nga xam ne liggéey bu am solo bi ñu ngi sant yàlla bu baax di remercier ñëpp di remercier monsieur le maire ki nga xam ne mu ngi fi sama wet euh, ñëw naa nag ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk ministère de l'environnement et du développement durable pour indi sunu njàppale ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñu amal fii dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba